jërë ngeen jëf mbokk yi seetaan wasaare lamb nuyooti nañ leen am kontaante ak mbégte comme nuñ leen koy defalee saa su ne mbokk yi démb ñu ngi woon fële ca yaraax wala leen open press caatu yaraax waaye caatu yaraax ki muy bëreel mooy xale bi nga xamante ne mooy sepp serpent serpent bi ngeen xam menn mi mi nga xamante ni mu ngi parcelle mbooloo xale la boo xamante ni macha allah Cambérène la fekk baax waaye bu jógee ñëpp jóg topp ko ànd ak moom waa Cambérène waa parcelle ñëpp waaye tey ñu ngi fii ci open presse sëñ Bass Kaay am na ku ma fekk muy bind lu muy bind nii Mame Less da ngay wuy téléphone. lamp lamp rek laay woo lamp. lamp sa dama bëgg a xool fu mu toll ba pare. bëri yaa leen di coordonné. maa leen di coordonné waaw woo ko. parce que 18h30 laal lay waxoon ba léegi gisaguma leen. gisaguñ leen. 17h30 laa lay waxoon na leen fekk fii. a jiitu fii man sama école chaque fois maa fay jiitu 2012 ba ma fa nekkee ba léegi maa leen di jiitu mbër moo fa jiitu na ma ko wax. damaa respecté li may def ñoom ñoo war a respecté li ñuy def nee la mbër war ta nekk ngaaka daa war a joxe le bon exemple parce que xaalis bi ñoom ñoo koy wut yóbbu ko seeni i mbokk yow mu ciy gën a sonn doo ci lekk boole kook sa coono sa téléphone sa doole sa xaalis amour bi la je suis un sportif man. kon li ñu naan làmb natt la wane nga ni la. non virus la virus bu dee sama yaram la man nekk ci depuis 2012 ba léegi. 2012 maanaam mooy diggante ma nekke parcelle mbooloo mais 87 laa commencé ñëw biir parcelle yor ay champion fii. ay fii ma la fekk loo fi wut. Euh, suma benn poulain mooy def open press am ñu naan serpent bu Cambérène mais serpent bu parcelle mbooloo la ñu bind ndax ci équipe bi la bokk. serpent ma yaakaar écurie Cambérène la nekk wala écurie parcelle mbooloo. daa am ñaari serpent léeg dañ koy jaawale. waaw waaw ban serpent la ban ak ban. serpent bi nekk Rock Énergie. waaw ak serpent bi nekk parcelle mbooloo dëkk Cambérène bi mooy neuvième combat serpent bi maa la ko wax lu ma la bindil téere ci làmb ñaata victoire bari na du ma ko lim deux défaites rek làmb ci neuf combat caatu yaraax maa ngi dégg mu yaakaar ne comme funki na neewi nee ko na teg baaraamam foofu te xool li ma koy wax te teey bañ a dem ak fuggam conseil laa koy jox. état de forme bu garaaw la gis man xam naa athlète bu entraîné keroog bi ma démb bi ma ko gisee xam naa ne mu ngi ci état de forme bu garaaw. negal ba gis serpent boo ko gisee di xam ne moom la mu yaakaar heure bu ne runkum ak serpent xam nga man damaa bëgg runkum bañ faa nekk di lewtoo boobaa dina xam doole ji nu muy mel boobaa ñoom ñaar bu ñu séddoo doole ji ba dox daje ba séddoo doole ji dinañ xam kan moo ëpp doole. mais ay yow fi mu toll nii serpent bu doon bëree combat bi nan la ko war a mën a entendre ba am ci ndam. loolu xanaa nag duma ma la ko saamal ci digg wasaare ko ci àll bi xanaa yow tamit ah yow comme da ngay ñëw doo fëgg da ñëw ne saraax man nag balaa maa dugg dina fëgg. da ngay bañ ñu gis ko xam ni wasaare làmb àndoon ko <laughs> non yow da ngay ñëw ne wasaare ci biir man damay fëgg doo ko wasaare ci biir waaw loolu système bu may. liggéey non dama ci am. Eh, kaay yow yam sax kaay. booy bi nga koy woo man la moo tax seen entraîneur yi di leen woo nga bañ a jël sa téléphone kaay kaay sama kanam buy sore ba sonn toogal yi toogal man moo tax jëloo téléphone maa ngi door a wàcc si oto laa nekkoon oto ba mënoo wuyu sa kët loolu ma xam ne su ma wuyee waaye su ma ko wuyoo dinaa ko fen te bëgguma fen damaa guddee wàcc rek feneen laay wàccee feneen tali bi moom moo xam nga xam nga li ma lay wax ci làmb ñoom ñii xale ndaw yi amaguñu wërsëgu làmb yaakaar yaakaaraguñ ci làmb lu bari tollooguñ fi ñuy wutee xaalis nee naa la mag ñi ci bopp ñi war a dem am nañ xaalis ba pare am nañ ay kër ñii amaguñ ko ay xale ndaw lañ am nañ doole koo ci peese mu mat bërigo wala bërigo bu manqué kon doo dootoo gone mag nga ponkal nga mais wërsëgu làmb yàlla moo koy dabale ci kaw nit ki mais ñoom dañoo war a dem seen yoon. dama koy gis ci compétition yi làmb simple yi muy wàcc di wane boppam ban yaakaar la parcelle mbooloo am ci moom rawatina parcelle ak Cambérène. da daan bañ a dem. ma ne ko li ngay def du solution bu sa yaram bëggee man di bëri séeréer si di la sóoraale del dugg adressé woon keroog ba mu dugg adressé woon séeréer si dañ ne kii fu ne woon loolu laay rekkee gone man loolu laay rënkee samay poulain bu ñu summee ko état physique bi ak corpulence bi ngay xool. yor na benn esprit boo xam ne ku ko daan doo ko daanaat taaka fay moo ko éliminé keroog terrain gaal bi. xam nga Thiaka champion moom muy gone jëm tolloog jëmmu Thiaka Faye te nombre de combat yi mu am ci arène bi man damaa bëgg en personne mu yokk moom yëpp sam bari na man samay poulain nee naa la du ñuy caaxaane lamb parce que dañoo man di bëre. moom sa loxo. ñaata combat nga amaat ren. def naa euh, de Zallo. Buureen euh, keroog jaatu ngi waaw moom a daan. kan ak kan nga daan. Modou Yacine. Modou Yacine waaw ak bu Kër Mbaye Fall. combat ba léegi taxaw ko. non ñu ngi wax nag mais dara sotteegul. ni ma la gis nga nekk ci làmb simple yi di ko fa ñàkkante boo tegul sa tànk ci làmb parcelle dinañ la dégg. yàlla baax na mooy loolu. sëñ Bass waaw waaw. booy bi way rek lay def kaay waaw waaw moo tee parcelle xale la boo xamante ne bàyyi leen ko xel wayli wayli la ah. maa lay nuyu waaw maa ngi lay fay doomu yaay artiste parcelle rawatina inte trois artiste parcelle la man daal maa ngi fépp daal maa ngi fépp daal mais parcelle dañ laa bëgg a doomoo barki yonent bi dañ maa bëgg loolu benn si yow yaa ngi nii da maa bëgg loolu tamit mais tamit koo bëgg rek bëgg na la barke yonent bi. maa xaar après. dëgg du neex. dañu war dañ ko war gërëm ko. ba mu doonee mbër ndaw ba ba toll fii ñun dañ ko war a gërëm ko. Serban yàlla nga yàlla mooy ndam si si bërëm bi incha allah. ku muy bëreel xam nga ko. waaw ki muy bëreel jaatu yaraax la. mais incha allah bu ñu yàlla dara dañ koy daan si xol bu sedd guy ñibbi si. day moom wala day bëre moom moom Serpent. day xeex ak moom dina xeex dina bëri dara kay daan indi sunu yëf. foo teg loolu yow mel na nga fit te boo yaraax ñoo la gën a doon rungaas. ñun dañoo faale ñooñu ñun la xale yotaa ñun dawuñu dara na ñëw. di nga dem làmb ji. nga fay fekk. deux heures. boo ko def la nga yëgal dina la xoolal le 22 dina mel ni mbaxalu puso lu leer lu leer. puso mbaxalu puso nu muy mel. lan mbaxalu puso nu muy mel. day noir. noo tudd. man la caat. Sall. Cheikh yaay sama waay am naa xarit bu bees Cheikh la tudd rek muy gaaw am. yaraax oh fas yaa ngoog sëñ Baskaay fas yaa ngoog. waaw waaw sëñ Bas fas yaa ngoog serpent mooy ñëw doomu Cambérène gaa ngi noonu tey lamb xale baa ngi noonu ci kaw sareet ba serpent ngi noonu cëpp na waaw ah, waaw ku nekk ak yëngal bu mbër nga xam ne mbër dugg si na sottil nañ ko ndox ña ngay daaj ndox ba ña sotti ci suuf ndox moom jàmm la moytu leen bi moytul ndeysaan champion baa ngi noonu sëñ Bas serpent ngi noonu sëñ Bas ñu ngi wisal suuf am na sunguf bu ñu génnee sunguf la ñu lal ko ci benn papier marabu di fooy bu weex luñ koy wax ma ngay ñëw serpent wa ngi noonu <laughs> sëñ bas daal tedd dafa xew démb caatu yarax daal tedd bopp ba serpent tedd bopp ba tedd original bi kan moo ko yor ñaari mbër yi ku ne la boppam tent bi ñoo ko moom ah yéenay borom tent bi ñun ñoo moom tent bi te bu samedi xam ne ñoo moom tent bi bu samdee lay xam ne ñoom moom tent bi cat du dara xamul booy bi bu samdee lay xam ne ñoom moom tent bi ñun ba sam cey làmb ma ngay dugg ëf na ëf na ëf na mbër waaw naa la Baye Djily tey sant rek alhamdulilah seen champion di bëre muy serpent mu war a bëre caatu yaraax combat bi nu ngeen koy waajal non combat bi moom xam waajal ko yow mi kon yeneen rek saay moom borom baax la xam nga bu amee dañ ciy taxaw di ko ñaanal yàlla may ko ndam rek bu sedd guy rek waaw. xam nga ki muy bëre. non ah man naam xam na ko mais man nag kooku dama koy dégg nii rek mais wax dëgg man moom naan duma ko bu baax quoi. Caatu Yaraax champion la ci làmb. fekk naa ko Gàmbi muy liggéey lu métti. mais état de forme bi ma gis mu yor ko. parcelle mbooloo war nañ cee jàpp. ah xam naa daal moom xaw na volume kii nag. liggéey moom nekkul ci ay volume wala affaire yooyu noonu force ngay liggéey mën nga caas am doole mais buñ sumee ko nañ xam ne <laughs> gars liggéey nañ daal. am doy gis naa ko démb ci open press mu ne ma xale bi sama rakk la boo xamante ni déggal na ma te xale bu bàyyi maye cër la maa ngi koy ñaanal bu dee mag mën naa ñaanal rakkam mu dal yàlla na ko yàlla may ndam tey looy wax sa rakk yow tamit. ah mais kii tam dafa nekk ak ñoo xamante nii ñun ay moroom lañ mais am na ay grand yu mel ni ñoom Moussa Dioum xama kon tey Moussa Ndoye moom lu mu def noonu cëram la mais kii tamit ñoom dañ koy dañ koy ëmb indi ko xama taxawu ko bu baax a baax te incha allahu rabi day am ndam waaw. day xeexoo day bëre. lépp lay def laam bëre doon la wax daal lépp lay def. waaw dafa leer moo nekk kuy fëgg. ah kuy fëgg man jaaxal gars daal mooy loolu Moussa Ndoye ñëw boog. ah yaa Moussa na ñëw. day neex de. nee na du année moom. kon kay na ñëw garaawul mën na ma jël de gargaa ko daan kay na ñu may ñun pooy sans rek. <laughs> Grand contre petit jaadu la. yaa ngi doxal waaw maa ngi doxal waaw maa ngi doxal tey waaye si koom bi taxale rek combat bi ba tey gisaatuñ la xamuñu ne foo nekk waaw waaw maa si koom di liggéey rek di xam ni xale laa xamul dama war a dem liggéey waat ñëwaat taxawaat beneen étape quoi tey ñu fekk la ci open press serpent seen diggante yéen ñaar lan la. waaw serpent moom ñoo jàngandoo école ñoo bokkoon benn classe ñoo bokk benn dëkk xam nga mu yéene ma jàmm yéene nga jàmm xam nga ñuy demalante di dikkalante comme bisam suñu bis la xam da see war a taxaw du a taxawee moo waral tey ñu teew fii nii moo doon demee. mais bis lu tax nga am fit. mais mbër moom boo dee ba amatoo fit rek tekki sa ngeen ma nga seetlu leen ci lan ci lan. jàngoro yëpp dañoo dajaloo nga jël siti te siti du lan moo la dugal ci Papa Boy Djiné waaw man man maay Sidi nga naan ma lan man maay Sidi gars yi dañoo ju man maay Sidi Paa boo jëlee li ma si dugal te saa wala ñëw confirmé sama diggante wala am na woon. tund mu jugee mu bëree am ci defet nga ñëwaat yow it nga bëre am ci defet yéen ñaar ñëpp ku ci nekk mu doon combat capital ci yéen ñaar combat bi lan la la jaral. baa bee bis boo gisee man xam ne combat bi jaral na ma bis bi nga xam ne bii bokkul combat jaral na tam lu ma bëgg. te sama carrière waruma ko saax saaxee te combat bi moo war a defar sama carrière daa am loo xam dama koy bañ sama supporter di ko bañ te waruma ko nangu du ma ko may doomu aadama nag si combat bi du ma ko si may doomu aadama dama koy gérer ba mu mat sax incha allah rabbi ku ne xam na ni Papa Boy Djiné dafa bëgg xeex est-ce que ñeme ngaa jàkkaarloo moom joxantey kurpañ man am na lamba ban bën bën bën moo mos a taxaw xeex bee bis bee bis dellu ginnaaw musuma yëkk musuma dellu ginnaaw si lamba te du ma ko mos a def sama moroom góor bi tax a ngemb boo taxee jàkkaarloo ma jëflante ak yow ak ku mënti doon nag lamba ji kaw ba suuf ma bàyyiwuma kenn par Ndeye Gueye nga am te ku ne xam na ni Ndeye Gueye day dugg ci dëkk bi jàppale ko wutal ko jàppale ba mu am jàppale est-ce que yow jàppale bu mel noonu di ko am ci combat bi. bee bis mooy mbër wax néewul jàppale waaw man sant yàlla ay kilifa yu mag a may jàppale ay kilifa yu mag nag laa wax ñoo may jàppale si côté yëpp man néew ma jàppale te fii tamit li ñuy wax rek nit mën naa jàppale jàppale ñi lay jàppale si géew bi la ñuy yem duñ si biir géew bi yee ñi lay jàppale yëpp si kaw la ñuy yem ak si kër ga bu dee si biir géew bi waaw boo jënd mën na bëre ak mën a bëre daanaan la mën na xeex ak mën a xeex daanaan la mooy moytu ci moom dara lu ma di ma xëpp ko si lu ma di ma fekk lu doole bëre lu ma ndeka bi fekk loolu dina neex dina yëg incha allahu rabi aada booy bawal ak a bëgg fekk mbër ci loo ne delloo siyaar baa jili maa lay siyaar delloo nga jàmm ji lépp jàmm alhamdulilah nga nekk écurie Dóor Dóoraat kii nekk écurie Parcelles mbooloo muy bëre tey nga ñëw ci open press bi ban yëg-yëg nga teew waaw mais kontaan rek ndax sama doom del dañoo koñ bi te ñu ànd guddi ak bëccëg te yëpp benn la xam nga moo tax koy ñëwal daal teewal ko ñun benn la ñun ñëpp tey Ada Boy Baol gisuñu la ci lamb yi lan moo waral temps yi nga gën laa gis ci lamb simple waaw maa ngi ci rek amaana maa ngi dem ci àll bi maa dem ci àll bi bëre de waaw maa ngi ñëwaat ak yeneen feem nag incha allah gisuma la gaal gi gisuma la adressé ko. waaw noonu la demee parce que dafa am bu ma génnoon quoi wax dëgg yàlla moo voyagé woon quoi bu ma nekkoon yàgg ba loolu moo tax mais maa ngi bëri tamit ci àll bi wax dëgg yàlla. Zarpa mmh. xam nga ki muy bëreel. waaw nañ ko ndax seetaan na rek. ñaata combat am nga seetaan. ah ñaata man parce que yaakaar naa may sama. yaakaar bi may bëri sama deuxième combat arène. ko bokk mu daan boobu ak am naa huit combat arène man moom yaakaar naa bii seeraat naa ko moog dab daan naa ko moog deux xam nga ko xam naa ko ci làmb kay ñoom ñaar buñ nee runkum daje nan la combat bi di demee waaw di ñaan yàlla rek mu def tek def tey xam ndam rek moo ko mu xool li nekk bi nii xam nga mu góorgóorlu quoi jéem daan xam ne rek moo ko war <laughs> Ada Boy Baol jaajëf grand champion bu ngi góor a soog góor a bàyyi sama loxo yaa ngi direct de bàyyi sama loxo maa lay ziar. yaa maa lay fay. nakay tey ma ñëw fekk la ci open press serpent nga nekk écurie Dóor Dóoraat mu nekk écurie Parcelles Mbooloo ban relation ngeen am yéen ñaar non seer sama rakk la ñoo dëkk ñoo bokk benn koñ sama rakk la quoi di ko ñaanal ndam waaw ndax xam nga la mi ngi góorgóorlu di bay waaram ci ji di ko ndam incha xam na ki muy bëreel caatu yaraax champion la ci làmb démb ba ma demee open press am foo sànni mbàtt mu tak ñëpp ñëw nañ rawatina magam Moussa Ndoye ñaax ko dooleel ko. waa loolu dara yooyu yëpp ay buux la ñoom ñaar ñoo des si géew bi seet daal xam naa lu mu mën a yàlla na ko yàlla may ndam incha allah soobee yàlla. lu mu xeex wala bëre. seet ñaar yëpp la mën ni say dàqul bëre bëre la mu gën a mën de man combat yi bëre laa gis muy daan te combat du yàgg. adversaire am nee na benn jël la am wala benn benn benn jàpp la muy zongaleem boobu te bu ko fattee ragal naa ni dootul mën a am dara ci làmb ah nay xaar zongale ba dóor mu daan fekk ko fa kon <laughs> nay xaar zongale ba door mu daan fekk ko fa. sa combat fu mu waa ñii si rek fan yu néew incha allah yàggatul. góor mbaa li gis muy li ma dégg muy riir gisuma ko mbaa du année balance. non non de loolu agsi na presque am na ñett nit ñu may waxal. yoo xam incha allah su ma jubóog ñoo xam naa fa ñu ne fii ak semaine rek xam a a mat sax loolu. ñetti mbër yi ma yaakaar kan nga ciy jël. man ñëpp xoola taawu ma si kenn ku ñëw baax na li ma jógee rek laa bëgg lijjanti mais man loolu garaawul ñetti mbër yëpp taawu ma si kenn. keroog maa ngi gis ci journal suñu lamb bi ñu tiitiree ne góor a góor lan mooy problème am lamb simple yi bu mu génnee ba léegi jëlul compétition yi bu demee final da koo ñàkk moom ak Pakala lan mooy sa problème yow góor sama wërsëg moo jotagul rek lépp lu mbër def maa ngi koy def yeah kon ñi lay seetaan ñu xamee ko noonu app bi moo jotagul waaw app moo jotagul mbër mën na bëri sama ba teew te du am drapeau app moo jotagul mais incha allah xam naa yàlla léegi mu ñëw mais ñun ñu ngi bàyyi suñu waar di liggéey saa bu sumee nañ xam ne ñi ñu ngi liggéey te loolu moom solo ku liggéey du ñemee sumee ko boobu di bëre yeah yaa ngi dóor dóoraat ba tey wala da ngay dem wrestling ah, jàmbaar wrestling ma man maa ngi gépp non dama bëgg nga wax ma lu leer parcelle moom benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar. Gora Sock mu ngi fan mu ngi dóor dóoraat wala mu ngi kii Papa Sow. Gora Sock mi ngi parcelle laa la askan wi dañ lay gis bu Modou Lo xewlee nga dem bu góor euh, bu Papa Sow xewlee nga dem bu Garga Mbossé xewlee nga dem. waaye ñu ngi laam-laamee ni Gora Sock ban écurie la nekk mbaa du daa jugee di dóor dóoraan ndax déggoon nañ daaw ay coow yoo xamante ne jot na am ci écurie ba la de guerre wala moseen bëreegul ma dem kontaanal ko wala ma entraînement ñi mooy kontaan ñoo ñu ma entraînement parcelle lañ dëkk man ku dëkk ci parcelle boo ma combat dama lay taxaw xale ak mag laa yamale yee loolu moo sama rôle saa yoo demee gis keneen waa champion yaay kan man laay Mass Barara moo ko yaay serpent mooy foo jëm tay man de yàlla bu ma ñor balaa ëppam presse bay li ma solo métti dama koy simbe. mais lii gàmmi laa ko jëlee tay fii dina mel ba yaay jàmme ñàkkee gàmmi na du wàcc ñun ko moo tax doo wàcc mu nguur a neex. te juddu gu rëy ndeyet bàyyi fulaat fayda borom koo xamul noo koy def nam la defa tax te serpent ni ma def moo tax. barke yoon tëbee Serap Fall moo ma yor añ reer ndékki suñu waa kër dañ ma abandonné suñu kër ay dof lan man damaa bëgg muus nag moo tax barki yonent bi moo la mu nga gis muuma bu wax caatu yaraax day wax foos xam nga dafa muuma dafa muuma ba pare dafa am ay rawaan wérul dox na dox ba yaram bi koor may wax si signature muy nekk foofu di ngang mel ni yaboy nekk foofu di ngang mel ni yaboy pour lan tañ signalé ko li ngay wax ni du ci yow mu yan ko sa sa ad xam nga la mooy problème gis nga maanaam tey jii nii xam nga néew néew bu dekki na gars yi ñoo fa nekkoon nan la ñuy def ndaa pardon du la si génnee de voilà pardon mënu la see génnee xam nga doo doo si génn ah ah man dafa damay damay wax rek ah si génn quand je te vois mon cœur tu m'envoies au dafa sori sama xol ndeysaan dee naa 23 ans sama bàmmeel amoon wifi rek gars ma sonal partagé ma partagé ma ma ba leen fa dekkiwaat ñu waat fii maa la gëm loo Mass Parara barke yonent bi Mass Parara Cambérène ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp di leen nuyu bu baax a baax presse bi ñëpp xam nga waa Cambérène parcelle amu seen fay gis naa seen taxawaay bu baax a baax a baax ñu si jàpp ma leen wax ne nañ ñaan bu baax a baax incha allah bu dee ndam rek si kàttanu yàlla dinaa ko indil incha allah rabi dal jàmm amul ragal borom gémmiñ gi ñu nàcc du wax jàmm man loolu du ma si tontu sama gars yi nii amul dara ma si tontu combat bi ma ma ko dara préparé mën na 6 mois samedi la jaratul wax nañ xaar jour yi rek ñu jëf amul leneen dal jàmm. mais dañoo gis combat bi dafa taxawoon pendant une semaine nga dem ba ci biir arrêté waa lamb ji nga ne arrangé wu la nga bàyyi mu seeti moom ci la jëlee combat bi nga xam ne mooy nga demoo dab daan mu daal daan dab nga jël sa combat yaa ki nga xam ne mooy Cheikh nga daal daan Cheikh nga ñëwaat jël retourné ne Fallou joxe ma avance caatu Yarax pare naa pour bëre ko. moom xam nga day tipsé xamul lu muy wax yàlla xam na loolu li muy wax dara dara dara amu si fekkoon dafa am sax weesu na combat bi taxaw na amul leen lu muy wax maag moom samedi la fu mu jaar moom dinañ laalee moom lu muy wax na dëggal boppam rek man si kàttul yàlla doomu Cambérène laa am ma dara dara dara lu may diit lu may dellu ginnaaw lu ma mel dinaa ko wane lu may jëf du ma ko wax nag mais incha allah rabi yéen a ngi fi maa fi dinañ ma dëkkaat micro si kàttul li ma bëgg man dama koy def moom mun moo ko téede si kàttanu yàlla. nee na jour si mooy bëre mooy daan mooy fecc mooy xeex. déggoo ma la wax xanaa nee naa la lu leer laa lay wax incha allah man sama ay wax ju bëri tam moo ko sax di wax dégg naa li mu wax li wax dégg naa lépp li mu wax man na jàpp li jàpp rek ma jàpp ma jàpp le jour ji incha allah rabi dinañ xam fu fu bopp fu ndam li di féete. caatu euh, serpent maa ngi lay nuyu. démb dama demoon seeti caatu yaraax ci open press am ma ne ko serpent daf laa ñeme ngeen ñemente yéen ñaar est-ce que combat bi dinañ ci séntu xeex mu ne ma. ñeme woo ko parce que signature yi sax du ngeen jàkkaarloo yéen ñaar xool ko ci bët. xam nga loolu moom wax bu yàqu la signature bi yéen ñëpp a ngi jarul nekk di wax daal man ñeme naa ko ñemewu ma ko xool naa ko xoolu ma ko teel a kañ. yónni sax yàgg guñ ko yónni ñaari fan. six mois lañ préparé combat bi ñaari fan desi wax amatul man li ma liggéey suñ si kàttan yàlla man dama koy jëfee du ma entraîné six benn jour ñëw may yax yaxi di lox lox man xaw ma loolu sax. moom xamal nañu ci biir waxam Gambie la demoon préparé ji combat man fekk naa ko Gambie. muy entraîné lu met yow combat bi fan nga ko préparé. géeju bàyyi laay Seydi bii laa ko préparé. yaa may dégg. avant tout maa leen di nuyu bu baax baax baax di ñaanal suñu xalifa ba Baye Ablaye suñu borom yàggal ko fi tam may ko wér. waaw lu bayti rasul bi yëpp maa ngi leen nuyu bu baax a baax a baax a baax waaw di leen sant bu baax a baax. maa ngi peexum Baye Laay gi moom wàll mobilisation bu garaaw. yaraax gépp génn ànd ci ginnaawam tey ma ñëwaat fii Cambérène xaw ma interneuf fekkaat fi mbooloo moo xamante ni toll na noonu est-ce que mbooloo mi dinañ la gunge làmb ja ko raw xëy moom lu mu waxoon démb 30 personnes duñ fi ñëw. waaw loolu la ma wax. xam nga ne xamul lu muy wax si ay karo la taxaw. li muy wax xamu si dara. nee naa la bu ñu yónni yàgg yàggatul. serpent ko xam xam ne tuuti wax jëf ju bari yàlla mi ngi tiim xam ne du ma ko may tarafaltal ay nii moom na xam loolu li ma koy wax yàlla mi ngi xam ne ne si man la nekk dama ko ko gëm ne bu mu su ñëwee bu mu def dara na taxaw xaar ma si kàttanu yàlla man damay jëf. billaahi wallaahi. waaw ma ñëw ñu talal ko micro mu ne moom min na parcelle te min na mbër boo xam ne moo ko sut nee na musul bëre kum tollool tay nee na ñi mu bëreel ñu sut ko ñëpp lim na sax deux giga nee na bu arbitre bi soufflé taxul ak ñoom jàpp la moo tere nga daanu. xam nga loolu wax ju yàqu la. Serpent a bugg ko yomb na de mën ko yomb na waaye waaw mais Serban Serban maa leen ñu maa leen ñu maa leen ñu Serban dañoo gis sa communication dafa xaw a dal trop combat bi tekk la laaj wala ñu koy cons déggoo ma la wax man dama entraîné six mois ne kon li ma entraîné man fu ma jaar bu ma féete jëriñu ma dara kon jug naa heure bu nekk di entraîné sama gars yi nii au passage leen nuyu baax a baax Zarko Balde moom bii mooy nekk premier grand combat man bii mooy sama deuxième grand combat victoire grand combat incha waaw. waaw may leen ñu may leen mu ne. dana lu xew. doo xeex doo bëri. te ñëpp nee nañ serpent moom moom xeex bi caatu yaraax moom moom bëri bi ndax moo la doole. xam nga ñu ni moom ñëpp ay course lañ fi Sénégal mënoo leen te wax de mënoo tee jamu jémiñ nit ne ko foosu lii nga may waxal xëy na liñ gis lañ wax wala liñ seetaan lañ wax lamb lañ wax da ngay lamb rek waaw mën nga xeex xeex biñ la jox yow dangay ñëw dëggal xeex wala dangay ñëw mbapat ak moom. déggoo li ma wax de man du ma xeex du ma bëree damay jëf. laay walaay taalaay. loolu laa xam. doomu Cambérène laa. encore une fois. yow maanaam yow serment pour jëf ci kaw Thiatou Yarakh est-ce mën nga ci Thiatou Yarakh dara serment. loolu yàgg na du léegi. xamal li ne fii di wax dëgg la c'est normal ndax ci la bokk. ci la bokk quoi mais man li ma gën a préféré mooy arbitre ne ma pare na ma ne ko waa mu ne ko pare na mu ne prix génn suñu diggante. mais dama la seet sa kër ñu toog nga ne ma ni ma defoon ay morom laa koy def ndax sama combat musul diire deux minutes. incha allah njool maa ngi nii de boo meegee. moom li la toog dégg nga ko na yow ñoom moom ak ñooñu bokkul. xamul sax lu ko tax lu ko lu tax mu wax ko moom nee na combat du yàgg juumul dara jee Cheikh Abdou Karim juumul serpent dañu gis poster yëpp ñu bind ci serpent na la ko jaral lan moo la jaral combat bi wala làmb ji waaw xam nga booy nekk ay nit ñu doon ay bañkat ku xam doomu Cambérène xam ne bañkat lañ ñu defet bëgguñu ku leen rusloo sama la te duñ topp si ginnaaw yaa fuus leer ko jaral loolo yàgg na du léegi bilaay walaay ba ma ko jaralee du léegi man kese laa la wax sans dara mën naa bëre ji sans accompagner ñu may accompagner ndax li ma li ma bëgg man li ma war dama koo xam lamb laa bëgg dafa ma leneen da ngay gàddoo si micro bii di ma ko dekk nii di xëy ko interview mën noonu laa xëy dem dóori waar entraîné defu ma dara lamb laa bëgg te personne du ma koy yaaxal jërëjëf Serba ñu gis euh, le neuf bëre passé am na lamb ji fa amoon mooy diggante Aliou ak ñaq jar ñu violence bi si amoon est-ce que loolu lépp ñoom ñu def koy programme grand combat di wax ak thème ñi nga xamante ne nii ak seen supporters yi violence parce que jamono ji ñu bari ñoo xam a ñu ngi xeex làmb naan làmb dafa yàqu làmb musul yàqu dañuy waxtaan suñu biir defar làmb jubóowaat parce que nee naa leen sport boo xamante ne ne sport fair play la amul xeex amul xuloo gis nga Arlem Boldof Irak xeer bi waa Alkarim waa Suisse waa Jakaarlo Salm Sow bitig bi ah gétti gi arabe yi waa parcelle ñun non waa waaw yow yow kan mooy ànd ak serpent naan da ngay da ay violence wala du ma la fa tardeel du ma xaar na violence du am eh pirip ma wecci leen. alxuraan moo. pirip wecci ñu. waaw kontaan si waaw question yi jeexee ñu bàyyi rek mu woote waaw ñu ñu tàggatoo waaw avant tout maay sant yàlla bu baax a baax a baax a baax di jël si yonent bi sant sama ñaari waajur di leen ñaanal suñu borom bàyyi leen fii bu baax baax di sam sama mag bi aadama gis nga nii sama mag bu baax la di ma soutien ama taxaw ma góos ak duraat am di non sama gars yi man du ma leen sant sax ndax ñun ñoo far xam ñoom duma leen sant duma leen gërëm ndax ma ñoom benn lañ di woo waa Cambérène yëpp di woo ñu may